xeex ak ndóol moo tax FAO ak ministère de l'agriculture ñoom nag jóg di jàppale jigéen ñi ci wàllu micro jardinage ci fii ci diwaanu Mbour nag amal nañ fi ab formation boo xamante ni jigéen ñi nekk ci association bi ñuy woowe Mbokko nekk ci jàmm gën 1 bu Mbour ñoom daal la amal rek ab formation ginnaaw loolu nag jigéen ñi jot nañoo bay bayum tabal boobu ba rek nag bari na ay légumes yoo xam ne jamono jiñ toll ni am nañ ko moo waral ki nga xam ne moo leen formé rafetlu na li nga xam ne la jigéen ñi le micro jardin comme ni ma koy faram-fàccee moy euh, mbeyum noor mo xamantene duñ ko béy ci souf si ci ay euh, table lañ koy béy voilà euh, ay conteneur alternatif. le constat bi ma ci def moy que ne vraiment wa Diamaguène farlu nuñu amna ci ab satisfaction parce que boo seetloo seen taxaway gis na né dal vraiment ñu farlu lañu té bëgg naa vraiment ba ñu bañu ñu dépassé fa sax fi sax fi ñu nekk. wa FAO ak technicien yu ministère bu agriculture ak de la famille ñom dal ñew nañu nemmeeku li nga xamante moy rek nak liggéey bi nga xamante amna na fa motax ki nga xam moy secrétaire général association mboko euh, dal waxna na ne daal jigéen ñi dañ leen wara wax jaraw lak waaw euh, mbeyum taabal ji ni ñu ci liggéey ak wa FAO wa FAO aussi jaale ko ci ministère de l'Agriculture ñoo ñu encadré. Nous jëkk fait def formation ñu am ci une minute. bi fait tour def sélection Nous wax fait une association moo ci gën réussir. une ñi mention spéciale Nous ñi euh, dañ leen en sept groupes groupe bu nekk sept personnes euh, ñu jël ay femmes yoo xamante ni ñoo leen di encadrer ñoom ñooy arroser nous ñooy dindi poussière bi en même temps ñoo ciy des bio bi. projet bi nag li ko tax a jóg mooy jàppale jigéen ñi ba ñu mën a organiser wu moo tax représentant ministère de la famille ba mu jëlee kàddu nee na pare na ngir jàppale jigéen ñi rek nag encadre leen ci lépp loo xamante ni ñu ngi ko jëmale ci wàllum développement waaye nag lii nga xam ne moom la def dina tax ba maanaam ci wàllum légume rek nag dootuñu ci amati benn jafe-jafe rawatina ci seen biir kër yi.